salaamaaleykum mbokk internet Sénégo yéen a seen émission le grand entretien tey le grand entretien nag ku muy dalal ñëpp xam nañ ko muy euh, le maire de Pikine Nord Amadou Diarra Amadou Diarra Sénégo mu ngi lay nuyu di la jaa jëfal ci dalal gu ngi leen dalal fii sa kër. ah jërëjëf maa ngi euh, jaajëfal Sénégo ak ñi koy seetaan ci àdduna bi yëpp rawatina waa Sénégal ak waa Pikine et particulièrement Pikine Nord bi nga xamante ne man maay seen maire. Mhm. tey contexte buñ fi ñëwee nekkul euh, contexte bu yomb ndax euh, fekk nañ fi coow ba sa chef de protocole actuellement ni dañ ko defeere léegi ci ngoon si ban commentaire nga ciy def waaw en tant que maire baax na balaa may wax ci déferment bi dama wax exactement lan moo xew mhm. parce que sama chef de protocole Bouba Sall qui en même temps président d'une ASC mhm. euh, muy ASC Les Guelwaar nekk euh, également responsable de famille jeune am jabar am doom yor liggéeyam di ko liggéey fii ci mairie bi xëy si huit fii ci mairie bi lañ ko koj di ko saaga ndey mu bañ a xeex ñu koy saaga naan ko tàppet nga di ko topp ci biir mairie bi mu dugg bureau am wàcc defe dem nañ muy dem ndékki ñu fekk ko ci ndékkikaay bi en face de la mairie kon ne di ko saaga mu gis boppam ñoom ñaar ñu xeex mu duma waaji gaañ ko ci bakkan mu ne barre de fer la ko dóor responsable politique am bi mu àndal bu RV muy Lamine Gueye jëndal ko certificat médical de complaisance bu 30 jours pour tëjlu ko parce que yoon dafa wax ne certificat médical am na ab bés yu muy am automatiquement dañuy defaree waaj mm-hmm. dëgg la du dëgg ñu dem nëbb waaj bi fi may waxee yow police mënul gis waaj leen mm-hmm. dafa feebar moo ngi clinique ban clinique ñu ne Mamel ba mu yàgg ñu ne dañ ko bëgg a gis ñu jóge na Mamel moo ngi Derklé moo ngi yoof moo ngi Kër Gorom donc un complot ourdi contre mon chef de protocole pour uniquement l'empêcher de faire son travail comme nag ñu sommes de démocrates justice moo def dinañ jël sunu avocat topp ko mais l'opinion doit savoir que dañ ko tooñ d'habitude boo nekkee ci miir yi bokk ci nguur bi su coow amee dañuy defe ne yaa jaay doole mais góor ak góor nga topp ko am na ñoo xam te kenn du leen saagante jàmbaar la muñ na ñu attaqué ko ba indi ko ba tey fanaanul këram. mënuñu ko fajee violence du sunu cër. du sunu statut du sunu rang. mun nañ ko nag mais duñ ko def parce que mun na indi ëllëg li xew feneen Sénégal yëpp di ko ñaaw. moo ñu bëgg autorité yi. ñu bañ topp manipulation opposant yooyu parce que tout simplement maanaam seen pexe dafa jeex seen yaakaar tas ci élection yi ñu jëm ñoo war seen xaalis yaakaar ne mën nañ jënd nit ñi dugg ci politique di corrompre de gauche à droite bëgg buzz politique bés bu nekk ñu créer benn événement pour attaque mairie bi attaque monsieur le maire sosal ko Amadou Diarra moo def lii defuma waxuma dunduma leen sax ñoom parce que c'est le cadet de mes bu ñuy bu ñu ma diffamé sax duma leen tontu parce que tontu leen mooy may leen tur loolu gën leen bonal seen xol ñu ne nañu gën a yokk degré bi xëy na dinañu tontu bu dul woon sama chef de communication ak Sénégal dayu bi mu am du ma nangu wax presse ñëw na fi jël na événement yi aw show show woo ma dama leen boole sama chef de cabinet kii mhm. est le responsable politique du cabinet moom moo leen doon tontu kooku ci boppam toj nañ bopp bi ak poignée américain bu nit indaale te chaque fois bu ñuy def seen cours dañuy woo une presse en ligne mu gunge leen chaque fois dañuy woo ay presse en ligne ne kaa leen dem ci mairie bi def seen cours dem may dalal di àtte y a des vidéos qui peuvent qui circulent yu wane man may àtte sama njoboot naa leen kaay leen dugg si fii police boo leen waxee ñu ne problème politique la ñaar ñaari camp balaa ñuy ñëw fekk xeex am ba yàq am le vingt cinq avant-hier ba ñu xeex bi amee mm-hmm. ñu def plainte bi sans convocation mm-hmm. sans convocation police dem jëli mon chef de protocole à son domicile mm-hmm. sans convocation c'est quelque chose que je déplore ça ne l'explique pas donné nañ ay explication mais géwma ko pour ñoom pour man dañoo dem victimiser wu manipuler police bu Pikine manipuler victimiser wu jooy dañoo jaay doole gis nga gaañ nañ ko agressé nañ ko waa ji daf moo ngi réanimation c'était des mensonges ba police jël ko je veux qu'on vérifie te loolu bu ñu demee devant la justice avec des avocats que docteur bi defal nit dina daanu ci état sax wala dugg ci teen du am 30 jours. Mm-hmm. parce que danga nga ne dafa Lamine Gueye dafa jënd certificat médical bi. de complaisance de 30 mm-hmm. jours mm-hmm. d'accord. jël médecin am jox ko ne da koy fayal clinique portel plant la nuit am na ñu ko gis ci otoom ñoom ñaar le lendemain ñu jëli këli ne moo ngi réanimation c'était de la manipulation ku ñu xam-xam ne ne bu dee xeexu politique mën nañ ko mais borom caq lu xeex ak borom baatu neen moom la ñu yàgg conseil mais bu leen leen topp mais trop c'est trop et cette injustice là bi ñu teg mon chef de protocole booba Sall c'est c'est pas normal c'est injuste c'est écœurant mais notre degré de responsabilité nu pousse à ce que ñu dal bu dul woon dal bi leneen dina xew mais lan moo waral tey coow li yëpp c'est une faiblesse de la police ki bu waroon am auteur ay nit ñëw porte plainte ne waa ji dañ ko agressé wala demal seeti ko mhm. police war na mën a dem xooli ko war a vérifier li mu wax ndax am na mais gisoo ko nga ñëw ki mu plainte rek dafa mel ni mu ne la sàccee wala yaa ma sàcc rek ñu jàpp tëj. waaw mais xam nga aussi police dafay sukkandiku aussi si certificat médical. bu ah, fekkee ne am na docteur bi nga xamante ne mën na jaay son âme il y de des des am na Sénégal fii xam nga ko yow mi may waxal man xam naa ko police xam na ko am na ñuy jaay certificat médical noo ko bëggee sa dépend ci xaalis bi nga joxe. mu dem jënd bu trente bu trente jours médecin boobu la ñu indi ak avocat yi ñu xam kan la ñu def contre expertise ñu xam ndax kooku waruñu ko convoquer porte ko plainte moom ndax complaisance bu mu def loolu mais comme l'affaire suit son cours nañ dem donc man li ma bëgg a wax je le pal à cœur ouvert c'est des les gens de Hervé là de Pikine à le tête le gosse là Lamine Gueye ils son spécialistes de la manipulation et de la victimisation ci wolof mooy dañoo mën a dee deelu ak yërëmtëru yërëmtëru ba pare di sournois di def ci suuf di yuuxu ci kaw loolu mooy seen faar jëli nañ ko di leen moytu nag bañ a dugg seen piège mais police dugg na seen piège justice mënul kii diñ ko jox buñ nee waa ji nangam police a ngi def enquête gisagu ko bon dañuy xaar en attendant booba sibi c'est ça qui est déplorable c'est ça qui est déplorable bu ma daloon ma nit loolu lay doon parce que bu ñu la ñooy présenté certificat médical de 30 jours eggaguñ procès enquête amagul xamaguñ li ñuy njëkk def mooy ñu téye la on assume mais leneen li may déplorer mooy le lendemain jour bi ñu arrêté Bouba ci le même jour ñëpp dem police di soutenir Bouba ci seen ginnaaw ñu fekk fi ay jigéen ak juróomi xale yu góor attaqué mairie bi l' institution municipale et c' est là où laa jóg pour jël samay responsabilité man bés bu nekk ñu diffamé ma dara détourné huit cent million dara sàcc na fii dara a suba ñu ne baadoolo yorul dara euh, ku sàcc ay million ba pare nga dellu ne baadoolo c'est contradictoire amul dara yorul dara amul oto amul kër dafa lue ah après ñu ne sàcc na ay millions juróomi at euh, budget huit cent millions da ko guux da ko lekk c'est contradictoire ci kuy dégg ku ma xam-xam ne mairie li ma ci def passion la li ma ci nekk passion la man mon plus grand plaisir mooy nga tëdd guddi wóor na faj nga ay rongañ c'est ça mon plaisir moo tax may bëgg yokk ay responsabilité di gën a mën a jëf parce que nuy jaamoo yàlla ñaar la ci wirdu yeeg zikir yeeg kurus yeeg julli ak naafale yi walla ci def ci borom borom borom doomu aadama yi yàlla sàkk d'accord comme fooruma ci bee ndax du ma wëlliwu du ma xutbu ma jéem a foor ci bii ngir yéege ci yàlla nit ñi nag dañuy maas nuun gi koo gis rek dafa bon dafa soxor nangam surtout booy def politique ñi deful politique jaakaar nañ ne képp kuy def politique da nga bon wala sàcc nga wala wuruj kañ nga man keccet ma ci lay wax dañu vérifier def naa six ans opposition ci mairie bi fii kenn mësuma ciy wax benn virgule de faute d'accord ba ma faloo xam naa opposant la mille 2014 laa falu 2021 laa ànd nguur gi 2014 2015 2016 2017 ma ñëw 2017 2018 2019 2022 6 ans 6 ans mandat bi jeexoon na ba ñu prolongé ko dew ma ci pouvoir kon xamoon naa opposant laa ba ma koy gagné en 2014 jour bi may def passation service laa xam ne je dois être prudent kon boo tëbee ngay politique nga ne jaraal duubal na fii def na fii ay waxi politique la ak fekk ñu xamul wala ñu am te luñ dégg gëm ko seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel mais xel yu baax yi kenn du ko yàq donc sama mairie bi nga xamante ne dénk nañ ma ko may maire bi sama responsabilité dañ ko woo ñi fi nekk di fi liggéey ak bâtiment bi maay premier responsable solo la loi je la personne morale su mairie bi juumee sax maa war a wuy ji yoon suñu tooñee mairie bi maa war a dem yoon lii nag dem naa ci yoon porte naa plainte porte naa plainte Lamine ak stafam yi ñëwoon fii di fi saaga nit ñi di sànni xeer di toj bay di gaañ bu tuur fi deret duma ma permettre mu ñu keneen di ko defaat yoon moo koy réglé yóbbu naa ko ci yoon yu ñu ma daan tooñ man baal naa leen li ñuy wax ci politique di ma difaane baal naa leen li ñuy waaj a wax ci man ci politique bi ci campagne bi baal naa leen mais mairie bii duma ci baale man lañ ko dénk may responsable su ma amul nu ma def ba lii fajuñu ko keneen jóg def ko keneen jóg def ko mun nañ yegg ci nit ñu jël fetal jaamaarloo te ce sera mm-hmm. moo tax j'ai déjà fait une plainte au mm-hmm. nom de l'institution municipale mm-hmm. en tant que personne morale du jëmm Amadou Diarra mais le maire de la commune di soutenir Bouba Sall di masawu famiyam yëpp ak sportif yu mu àndal yëpp di leen wax ne góoru yàlla rek moo fi des fi Serigne Touba jaar Abdoulaye Wade jaar fa yeneen leader politique jaar fa buuba bu fa jaaree dafa def formation accélérée parce que grade la ci leader yàlla am na fu mu lay toll fu la fa jaarloo da lay def lu ñuy wax épuration d'accord loolu laa bëggoon wax ci ci ci ci point boobu. mais ce qui est bizarre mooy naka la nit ñi mën a sàgganee ba ñuy ak situation bu mel nii si situation problème de ak certificat de résidence. waaw gis foofu xam nga wax naa leen ñoom maanaam ci ci ci ci ci wolof bu bu direct quoi. Mhm. kàcc mhm. lañuy def ak euh, yërëmtalu ak jéebaane mooy seen politique maanaam seen jéebaane dañuy kàcc mun naa la tegal vidéo biir commission bii dox mun naa la jox vidéo soo bëggee ma génnee ko léegi mhm. walla yow nga jël ko nga déglu représentant Pastef Ousmane Sonko bi ci bi ci commission bi uh-huh. ah kooku du farag man uh-huh. man ma bokk majorité présidentielle mun naa la ko tegal pur dafa allié ak ñoom opposant la uh-huh. mun naal tegal représentant am lu mu wax commission bi RAS sa fonctionne à merveille mun naal la tegal représentant SEDA commission électorale départemental autonome ñu taxaw devant le président départemental de la SEDA ñu ne ko fii RAS saa fonctionne normalement commission bi xooluma benn yoon laa fa dugg lan ngeen soxla ñu wax ma jóg nañ une semaine duñu añ ma woo sama adjointe ne ko évaluer ma dépense bi mu ne ma deux cent quatre vingt seize mille wala près de trois cent mille ma ne ko day leen jox añ bés bu ne ak ataaya ak gel ak masque ma jox leen wane ginnaaw affaire inscription bi sama benn carte électeur maa ngi ko denc li ci des samay militants ñooy woos ñeneen ñi mais c'est pas mon travail mm-hmm. en tant que leader politique mm-hmm. toppatoowuma loolu ku ëppale loo ma bind bu ñu gañee demee élection nga gañe ma mm-hmm. ñoom it ñoo ngi njëkkante ku nekk di bindu ñoom nag dañoo amoon benn pexe bu ñu laloon ëpp na juróom-ñaari at parce que booy la Lamine Gueye boobu mooy responsable départemental RV a Alassane moo ko ne rek yaa may toogal Pikine ci département bi amul élection amul kuréel amul cellule amul structure ñoo xam liñ seq ci seen deal ak chinois yi ba mu nekkoo kaay parce que moo doon interprète chinois yi doon ñëw di wut pétrole u Sénégal di wut gazu Sénégal dañoo soxla woon benn interprète chinois ñu jël ko mu dal ci di interprète ñooñu ne ak ah, Thierno Alassane euh, da ngay créer parti politique ñoo ngi sa ginnaaw parce que mag Sall warul a dàq te ñun nga bëggoon a jox pétrole bi comme moo doon interprète dégg na deal bi ñu ne ko kaay bokk ci deal bi dama toogal ñu fële bu mu yor xaalis boobu di la lëmbee di def du n'importe quoi blanchiment wuti tool boo waxee mu ne loolu laay liggéey nu on sait xaalis boobu lay jël di jugal fii di politique fii yaakaar ne nag mun na dem ne leen jàppale leen ma dinaa jëli mairie après day jaay mairie bi après ban business la ciy def après fu mu koy yóbbu ban xam-xam la am pour composer mairie kooku population bi ñoo koy wax mais sur cette base la gëmloo nit ñi ne mairie bi dama koy am waaw bu la waxee jàppale ma maa ngi dina gañe miir bi nga koy jox xaalis te mu xool boppam xam ne dañ koy gañe il faut mu yuuxu créer ay prétexte te ñëwagul dañ maa tere bind vous-même Sénégal si leen ñëw jéem a enquête loolu ndax commission bi dinañ bañal benn nit sa n'existe pas am ñu nekk jàmm gën mooy seen responsable mais amuñu fa ku am tour bu mu am ak xaalis bu mu am pour nekk candidat ca jàmm gën Caaroy amuñu ko fa yëmbal amuñu ko fa ginnaaw raay amuñu ko fa ñaxirab amuñu ko fa Tiwaawun bu ay mbokkam nekk amuñu ko fa bëgg nañ ko voteel lu ñuy def am na njëgu kaar yu mu leen di fay ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu bindu fii loolu du fraude. loolu mooy indi corrélation politique bi alors. loolu mooy fraude bi ñu doon organisé il y a un an. ma yëg ko il y a sept mois. j'ai instruit waa l'officier d'état civil ku fi dëkk. defaral ko résidence résidence mooy fii nga dëkk ak ah, ku dëkk Tiwaawan nga def ko résidence bi dañ la war a tëj léegi bu fekkee nag am nga ñaari sept chef quartier wala ñetti chef de quartier yu politique ak yow ànd ak yow mun nañ la jox ay certificat de domicile nga def ko waa Ñaxirab vierge nga remplir indi ñu yëg dil bi ñu ne nag domicile yi ngeen indi muy fanweer wala vingt cinq duñ ko defar nañ seen boroom dikk ñu laaj leen fan lañ dëkk ci quartier boobu ñu wax c'est pas normal commencé yuuxu depuis boobu lañ commencé di dugg fii ci mairie bi naan dañoo bloqué oui dañoo bloqué fraude bi mais bloqué wuñ ko dëkk Pikine noor yaa xam militant am nga yaa xam beneen parti nga nga bëgg a bindu ñu xañ na ko li ñu bloqué mooy intention de fraude bi ñu organisé ci suuf ñu yëg ko ne du fi am c'est ça le problème ñu jëfru jëfru xam nga jëfru boo jëfroo da ngay wax boo jëfroo da ngay violent moo tax seen véritable nature d'animal génn ñu ñëw di attaquer mairie bi pour lan avec un objectif sournois bu ñu attaquer mairie bi coow fii avantage bi mairie bi am en tant que officier d'état civil avec le maire nga xamante ne gars bu ñëwee dinañ dugg ci bureau yi mun a am seen certificat de résidence avantage boobu ñu xañ leen ko mooy lan ñu génnee commission bi mais là aussi c'est parce que jànguñu. jànguñu pourquoi parce que l'officier d'état civil sa signature fait fois tey boo dëkkoon sama biir commune yow ma xam la nga xam ma nga ñëw ni monsieur l'officier d'état civil dama bëgg un certificat de résidence pour un complément de dossier ma xam la nga xam ma sur le champ laa la koy defal est-ce que j'ai besoin de de te retourner nga dem ci chef de quartier bi mu mu bindal ma këyit bataaxal bu ñuy tudd certificat de domicile ou attestation de domicile mm-hmm. may doog a xam ne fii nga dëkk mm-hmm. j'en ai pas besoin loi bi waxuma ko sama aqulaay taalaa la ma wax mm-hmm. comme ku faatu léegi léegi mu wóor na ma kii faatu na ma war ko defal li ñu laaj mooy wool constat de médecin moo lay firndeel ne officier d'état kii mën nga ko defal permis d'inhumation ndax faatu na normalement waaw ah, bu fekkee nag certificat de domicile bi chef de quartier bi maa gën a maa ko gën a xam waa ji <laughs> du ma ko wax mu defal ma ko léegi ñoom nag loolu la ñuy wax fraude mooy monsieur le maire officier d'état civil toog naa fii sama militant ñëw ne ma dama bëgg a bindu te dëkk fii ci commune bi ma defaral ko ko ñoom seeni militant xamuñu ma xamuma leen buñ ko bëggee nu may def damay gëm ma defal leen ko dama lay laaj rek lu logique est-ce que damay gëm defal ko militan ñu ma xamul nañ nekk citoyen d'accord am nañ droit am ko d'accord mais bu pour ma vérifier nan laay def dama lay delloo ci chef de quartier ba mu bind ko ma laaj chef de quartier yi nañu def un travail correct bu ñu def di faux ndax jamono ji daa gaaw lan ñu ma mënoon reprocher mooy def naa ko ku dëggul sama gox te billaahi lesi soxloo ma ko man su may gañe gañe bu rafet laa bëgg su may bëree sama adversaire damay bëgg ñu am ay armes égales waa Pikine Nord Falma moo gën waa ñaxu rab ak jàmm gën ñëw Falma je veux être maire de Pikine Nord mais bëgguma nekk le maire de Pikine Nord jàmm gën ñaxu rab Tidiawane Diacksao ginnaaw raay réewi nii je veux être le maire des populations de Pikine Nord lui il voulait avoir des électeurs de ñaxu rab Tivaouane jàmm gën ginnaaw raay Dalifort am na benn groupement féminin bi fi ñëw barki démb officier d'état civil téye ko malheureusement il n'est la dama la ko doon woon mhm. indi seen certificat de domicile groupement féminin mhm. fooleen dëkk ñu ne gannaaw cinéma awa mhm. à Pikine Est waaw certificat de domicile ñu def quartier Colobane Lansar kan mooy chef de quartier bi un militant de RV mooy chef de quartier bi waaw kooku waruñu ko tëj chef de quartier boobu wala ñu dàq loolu moom naa bàyyi yoon yoon foo dëkk ñu ne ñoo ngi dëkk école trois ca gannaaw mm-hmm. groupement féminin lañ dañoo ñëw pour voter waa RV école 3 Icotaf Icotaf mm-hmm. qui est à Pikine Est mm-hmm. ñu ne waaw waaye loolu kay bañu ñu ngeen woteel RV mais dem leen woteel RV ba ca Pikine Est dëkku leen fii léegi yéen dañuy woo police ñu jël leen parce que li ngeen di def fraude la yoon la koy bañ ñu tëju ci bureau bi di jooy dimbali leen ñu ñu confisquer seen carte d'identité ak seen certificat de domicile officier d'état civil bi ak indulgence am delloo leen seen carte d'identité te domicile yi ne leen dem leen du ma leen defal da ngaa dégg ñu coow ko fii déggoo ko ci presse bi de man maa def scoop boobu tey mun naa la indil certificat de domicile bi wan la ko alors ce sont ces tentatives de fraude que nous avons bloquées ñoom ñu commencé di ruer sur tous les toits pour crier que ñun on les bloque ensuite le dernier objectif bi ñu amoon mooy délocalisation de la commission. topp la commission la tournée du président national de Sénat de, de la Sénat. fekk ko à Pikine Est. ne ko Pikine Nord dañuy bloqué. ñooñu yónni fi une mission départementale. ñu ñëw enquêter le président les deux représentants de SEDA yu siégé. Mhm. les différents partis politiques qui sont représentés ñëpp ne RAS. président bi ne mais ñii dañuy fontu. ils sont venus une trentaine dans mon bureau wax wax wax wax ma ñëw fii ndekete RAS. parce que lan lañu bëggoon commission bi jóge fi ñu crier victoire résidence yi bañ leen laajee présence physique préfet pour jàmm rek la sous-préfet pour jàmm rek mu ne ok et puis njort na ne li ñuy wax peut-être c'est parce que manipulation lañu def le sous-préfet dit ok pour jàmm am dem leen toog comme mairie bi bañal nañ leen ko ñëw leen ci man ma defal leen premier jour vingt cinq yi ñu bañ leen bañaloon sous-préfet nangu ko jox leen ko ñu commencé ñëw di indiwaat ay loo sous-préfet ne la mais ñii fu ñu dëkk ah du ma signé lii ah, nañ dikk mhm. ñu dem ci presse pii ñu ne sous préfet bi il est complice avec le maire parce que il nous bloque waaw ah, mais sëñ bi dañu waxante dëgg. mais ñoom lan moo tax objectif bi nekk Pikine Nord. non parce que le responsable départemental de RV. Mhm. bi Thierno Alassane doon dila ndóol. ba mu dégg dil bi muy Mamadou Lamine Gueye. Mhm. mais fii la dëkk sama rakk la. bokk naa ci ñu ko yar bokk naa ñu ko formé. donc waxantuma dama wax li may wax dama ko xam comme fii la dëkk nag nee leen moo leen jiite ci département bi ñu dem élection locale day bëgg a gañe fii léegi yeneen communes yi nga xamante ne moo leen jiite mu ne leen bu leen dem élection parce que boo leen demee da ngeen perte ma perte ñun ñëpp ñu perte Thierno Alassane du am fenn dara léegi da ngeen di jël seeni carte ngeen tuxal ko ci man bu ko defee ma am ay baat mais cam man bugguma boobu léegi nag boobu nag ñàkk ñu fulla ak bu nga xamante ne li nga xam te ne parti au pouvoir moo waroon ñëw di ko organiser opposition bi di ko décrier ñu bàyyi un opposant di ko organiser ñu koy bàyyi mu jàll alors que ñun defuñu ko man gañe bu rafet laa bëgg su may gañe élection yi ba ma koy gañe moins de deux cent mille laa battre campagne te nekkumoon majorité présidentielle ñoom ñor ay millions jënduma benn tiset ou benn casquette ma dem sama askan ñu fal ma moo tax ma doon seen baay fal fal boobu moo neex waaye jéggaani ay électeurs illégalement parce que loi def ko tere nga bëgg leen indi fii ñu voté la boo gañee sax war nga rus léegi nag comme loolu entreprise boobu yàqu na te mu wóor leen ne yàqu na ñi ànd ak ñoom xam nañ ne yàqu na moom xam na ne yàqu na te doon na wuuti xaalis feneen ñu koy jàppale ngir mu gañe lenn la mën a def mooy indi coow devenir animal et violent ça si nu nous répondons par ces coups dina ñu yedd borom caq du xeex ak borom baatu neen loolu lañ may wax toujours ensuite yaa mag yi waxal xale yi bu ñu violent téye leen léegi nag ci press bi ku ci tontu bokk sama njaboot ñu xuloo la saaga la koj la boo fayoo ñu ne njabootu Amadou Diarra soo ko defee kenn ngeen xeex nga def ko kenn ngeen xeex bu dee ñett ñu commencé naan RV Amadou Diarra voilà l'objectif recherché c'est le buzz c'est la dualité ak le maire alors comme j'ai compris ça ma boole leen nag ñi gën a tuuti ci sama cabinet ñoom ñoo leen di tontu et ça énerve aussi parce que ngay saaga nit di ko xas tontuwu la ay ndoom mu former leen ba ñu mot di la mën a jàngal sax politique boo juumee ñu jag gàgganti la ci biir say seen réponse bu yàggee nga yokk degré bi degré bi nag mooy nañu attaque mairie bi saccage ko et ça ñëpp war nañ ci d'accord yow mi may interview war nga ci d'accord c'est inacceptable dans une république par la politique c'est les arguments c'est les batailles d'idées c'est les programmes mais ce n'est pas une attaque physique violente agression bu la neex sax nga manipuler ñi ñi ngay manipuler nga xam ko mais attaquer physiquement l'institution nga toj ko c'est extrêmement grave et c'est là où j'alerte parce que demain quelqu'un d'autre peut être frustré dem ci mairie bi toj ko si on ne prend pas la responsabilité kii la nôtre nous deviendrons faibles devant nos compatriotes mm-hmm. moo tax en tant que maire su veux que la justice règle cette affaire pour que nul n'en ignore mm-hmm. pour que demain quelqu'un d'autre bu bëgg a tenter un pareil coup mu xam ne lii moo la ci xaar mm-hmm. xam nga li ma ciy wax saa su ne rek mooy euh, institution ak mm. bu mu ci mënti doon kenn waru ko attaqué parce que bon gis nañ des événements yi fi amoon mois de mars dernier absolument ay nit tëb laal institution ba laal ay tribunal ba ci mairie laaloon nañ ko c'est lii ñu toj nii ba ma ko defaree matul weer mm-hmm. te jamono jooju lañ ko tojoon mm-hmm. te ñoom ñoo ko tojoon comment la aussi la preuve wax mm-hmm. naa commissaire ma ne naa bàyyi mu sedd parce que événement mars bi la woon riirandoo am bon comme il soxor nañ benn soxor bi ñu départ ci benn kesku PMI yi toog di ko wax borom kesku PMI bi yëg ko wooma boobu maa ngi grippe grippe bu metti monsieur le maire waa RV nee nañ dañuy dem taali mairie ba ci profito ci yooyu ma man lu ci sama yoon man bokkuma sax APR boobu maa ngi ci opposition. Mhm. lu ci mais comme c'est waa APR waa kii waa RV tiit nañ mairie bi tiit bi nga xamante ne iñaan nañ ak soxor bi nga xamante ne plaisir la ñu ne taal nañ mairie bi ñu koy reetaan c'est c'est c'est vraiment désolant mhm. kooku ba ma ko waxee ma ne ko nañ ko taal moomu ma mairie bi. ba ñëwee toj mairie bi saccagé toutes les vitres ba ci sama vitre bureau défoncer la porte yàq état civil tout heureusement accédé wuñ ci dossier ay chef de quartier dañoo def délégation ak ay imam ñëw ne ma dañu bëgg tant que événement yi jeexagul ñuy xëy di garder mairie bi parce que moomoo ko ñoo ko moom jour boobu dama kontaan presque ci laa lan ba ñu ñëwee mënuñu tëb tëb ñoom def ko dañoo ànd ak ñu doon attaqué Auchan bi ci sama wet ba ñëw daj dajji Auchan bi dajjiwul ñuy ñibbi ñi ci seen biir comme ful rek mairie mairie pour xale yi mairie am na lu fa mhm. ñu ànd ak ñoom toj ba pare ci moment boobu la am ku dóor pistolet ci Auchan bi mu ubbeeku ñu ne Auchan bi ubbeeku na comme ñu doon wut lañ ñu daw moo tax dugg ñu ci mairie bi pour taal ko billaahi wallahi walkitaab bi balaa ñu koy toj nit woo na ma nee ma waa RV ñoo ngi fii suñu ginnaaw koñ xam naa kan la mun naa wax tur yi ki ma ko wax mun naa ko wax ñu ne waa RV nee nañ dem toji mairie bi cest à si ce sont ces gens à Pikine bu ñu daan campagne mairie bi ba ma koy gañee quatorze liste la woon dañuy caravane daje ci biir kaw tali bi nuyoonte yëkkante loxo si souhaité bon chance wala ma romb député Salamata Koraak bi représenté APR ne ko honorable député génnal génnal génnal kaay voteel ñu la ma romb Ndey Jaw Ndey Jaw sa bâtiment génnal mu génn def nii fair play boobu lañ mu a politique pour la première fois à Pikine Nord ñu commencé gis ces violences te bu ñu ci woo nag bu ñu ci woo maa ngi artu sama ndaw ñëpp di artu sama militants yi di artu commission bi di artu état civil bëgguma ñu may leen benn prétexte bu ñu salteel sunu future victoire bu ñu topp provocation provocation xeexloowu ma xulooloowu ma ku bëgg carte électeur yaa xam koy voteel ñëwal inscrire mm-hmm. élection ca bës ba la ñuy xool ku ëppale mais xañ nit ki mu mu mu bindu <coughs> binduwul nga may say nit ñu bindu nga dem gañe ku ñàkk jom nga mm-hmm. te man jom laa fees mm-hmm. donc commission bi moo ngi def liggéeyam normalement état civil ku dëkk fii ñëw di wut résidence ñu bañal la ko wowal internet jéebaane ba ñu yëg ko ñu jox la ko. Mhm. ba pare sanctionné kilo la bañal. donc fii amul problème RV bu Pikine noor moo am problème di dugg ci manipulation parce que moo ngi bëgg a maquiller l'explication de sa future défaite. Mhm. tey nag buzz bi ma ko may metti na ma trop Sénégal vous êtes une presse internationale. Mhm. xam nañ leen ci àdduna yàgg ngeen laaj entretien bi. un excellent entretien ma def ko di leen tudd war ngeen dem seeti leen jox leen une note ñu fay ma parce que vraiment bañ naa ko ay weer di wax di leen tudd mais tey su ma waxul day mel ni liñ dal sama chef de protocole ak li ñu attaqué mairie bi jamul sama xol ñaar yooyu ñoo jam sama xol ba tax na ma war a expliquer ñi ma war a dégg dégg ma et je crois que à Sénégal dina mën a tas ba nit ñi xam ne akulaay taalaa laa waxee et c'est le cœur pas rouge mais blanc set wecc moo wax mhm. et c'est la vérité que j'ai dit kuy nit di yëg dëgg nga xam ne man dëgg rek laa wax